muxtaar mbokku julliti rawatina mbokku taalibe yi del leen wax alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin ngir sant yàlla sunu borom mi ñu boole ak sëriñ Abdul Aziz Baara di sëtu sëriñ Sidil Mokhtar Mbacke te woo juróom bu góor ku ne xam ko di sëriñ Cheikh Baara Matiley Mbacke yal na yàlla yokk leeram ku ne xam ko ci wàllu kurus ak daan jàppale doomu aadama yi mbokk yi lawoon ca baay ba nag feeñ na ci doom ji yow mbokk mi may déglu lépp loo xam ni danga bëgg ci wàllu ñaan jëm jule ci waxu yàlla sunu borom képp koo xam ni danga bëgg ay kayit ngir tukki bitim réew daf ci def ay ñaan ci kàttanu sunu borom yow miy jigéen te bëgg borom kër bu baax bu la suturaal te man laa yor yow mi góor te bëgg soxna su baax moom sëriñ Abdul Aziz Baara di sëtu sëriñ dil Muxtaar daf ci yëngu ak ay ñaan yu am solo yu mu leen jagleel yow mi góor te booy jote ak sa soxna ngay gaaw a yëg sa bopp di maanaam góor gu néew kàttan ci wàllu sëy seetil sëriñ Abdul Aziz Baara sëtu sëriñ Sidil Muxtaar yéen ñi muy ndaw ba ci ñaar ñoo xam ni dañoo bëgg a sëy te am ay jafe-jafe ak képp koo xam ni da nga amee faru rab wala ndawus rab boo jokkoo ak sëriñ Abdou Aziz Baare sëtu sëriñ Sidil Muxtaar mu jàppale la ci ci kàttanu yàlla ana yéen commerçant yi yéen ñi yëngu ci wàllu jënd ak jaay wala yéen ñi yëngu ci wàllu mbooloo te bëgg bayre mi ngi ci ak ay tegtal yu wér te wóor lépp mu jële ko ci alxuraanul karim waxu yàlla sunu borom mbokk bépp jafe-jafe boo xam da nga ko am ci sa dund te bëgg ci ay ñaan ak ay saafara sëtu sëriñ Sidil Muxtaar Mbakke yéen ñi ko soxla te bëgg gise ak moom te nekk ci diwaanu Ndakaaru hmm? mën ngeen a ñëw ci Hann Mariste samedi la fiy nekk ak dimanche bu nekk bu dee yéen nekk ci diwaanu Touba te bëgg gisee mbaa nga jokkoo ak moom aljuma bu nekk la fiy nekk ci Touba Jannatul Mahwa bu dee yéen ñi nekk ci diwaanu Mbuur mi ngi fiy nekk àllarba ak alxames bu nekk mbokk yi kile moo di sëriñ Abdul Aziz Baara Mbakke di doomi sëriñ Baara Matiley Mbakke doon itam sëtu sëriñ Sidil Muxtaar moom mi li di yëngu ci wàlluk ñaan doon na ko ci waajuram doon na ko itam am ci maamam yemu ca waaye mu doon ku gëstu lool woo leen ko ci 77 798 78 81 77 798 78 81 kii moo di sëtub Serigne Baara bi képp ku jëflante ak moom mu jàppale la te yàlla rekk tax ak maamam ju baax ja di Seyxul Xadim lu xew TV seen YouTube sénégalaise da bëgg publicité jokkowal ak ñun lu xew TV xibaar yi wér wóor. baax a baax waaw ma ñëw ci film bi rek parce que dem bare maa ngi bëgg dugg waaye film bi daal moom neex na trop moom waaye daal comme niñ ko waxee rek si Sarr daal moom ni ni kii moom dafa dafa xaw a yomb trop daal dafa xaw a yomb trop ni muy rëccee ak ay mi daal daa yomb ci bandi bu mag waaw te kii Abdel Momet Abdel Momet ni mu jabaram ji neen neexuma daal moom xay na ray bi moom moom moo ma metti manoon naa xam naa li mu bëggoon xam naa amul moom xam naa daa bëggoon récupérer alal ji rek te bëggutoon jabar ji dee waaye gis nga ndogal ndogalu yàlla gis nga nu naa mu feeñ daal bëgg naa Abdel moom bëgg naa lii mu def moom mu feeñ ñu teg ci bëtam ñu teg ci ci seen bët parce que daal affaire bi dafa yomb trop. sa jigéen mu fat la mënal la jël alalam jox la xam nga rek nga xëy xëy rek say ci say mbir la la deer xam li dafa metti trop daal metti na trop waaw ngeen def yéen a ci jàmm j'espère que yéen a ngi ci jàmm baax a baax bon noonu daal sama xalaat mooy que euh, Jeanne jëkkëram bi bu ko woon Abdel bu ko woon parce que bu ko bëggoon ak lépp lu munti doon moom man fu ma gisee contre bi mooy que moom dafa contre rakk ji bi mu jëlee Jeanne bi mu jëlee alal bi jox ko rakk ji buggu rakk ji de alal bi la soxla c'est ça buggul nag mu dee bëggul Jeanne euh, dee dafa buggoon jël alal gi daw wala jël ko def ko beneen jox def teg ko di daal man loolu laa gis waaw man loolu mooy sama xalaat Jeanne daf ma neex nag vraiment daf ma neex trop trop trop. mais nag mu dee métti na trop mu ngi ëmb toog ko ñaati at ëmbul yàlla may ko ëmb mu gaañu ci jëkkër ji moo def lépp parce que waruloon yónni ay bànn gis nga ñu koy tiital ak yooyu ñu bëgg koo tàkkal uh, sama waajooju damay fàtte tur bi rek mais nag dama uh, loolu daal mooy sama xalaat doy na waar doy na waar trop film bi moom neex na trop sedd na suñu xol. salaamaaleykum maa leen nuyu bu baax dama bëgg ñëw ci mers ci Mengue ak wujjam bi c'est parce que Mengue lim bëgg doxalee bëgg défendre magam la ak tamit bañ ku ko yeblu moo tax mu bëgg leen doxalee noonu moo tax tamit muy nëpp nëpp mais je pense que ni loolu moom warul mën a am parce que du yoon ndax tey jii keene tamit doomam la te xañ ne bu ko defoon tamit bu ko ab jaamur defoon tamit ju ci xaar kon tamit bu ko kii war a defee bu ko mag ji defee tamit wuru ce am benn loo xamante ni war na ko cee mën a wax dama jàpp ne nag xañ ne lim doon magam rek moo tax mu doxalee noonu mais mu doxalee dara nekku si yoon tamit. waaw waa Besto TV waa waa Abidjan ñoo ñëwaat ba léegi pour jëm si commentaire euh, si série yi Mœurs waaw man nag bi yoon nag ci wàllum kii laa wax quoi Ciara moom rôle la moom ba muy joué moom franchement ma moom voilà boobu mu rôle moom neex na ma lool waa nu mu nu mu nu muy voilà ci côté banditif bi quoi nu nu mu ko joué moom comme moom moom ak Jules César quoi dañoo maanaam dañoo mën maanaam rôle bu ñuy def quoi voilà may xamal euh, voilà Big Mama xam naa dañoo dañoo mel Ciara ndax si voilà action bu mu defoon ci xale bu jigéen boobu voilà Ciara daa mu si jublu woon parce que kooku da ko da ko defoon lu ko métti euh, chef boobu da ko defoon lu ko métti quoi après mu jëm yàqal chef bi gis ngeen plan bi mu na réussir maanaam heureusement euh, femme boobu defoon deal bi voilà internet. internet maanaam mu ngi ci mu ngi ci yaramam quoi ok xam naa loolu rek moo leen xaw a déranger wante nañ def naan quoi parce que Ciara voilà la quoi pour man dangereux la xam naa gaañ a nga sàkkal pexe wala Ciara nag ma na moot bu baax quoi loolu la amoon ci lu may wax bi yoon ci wàllum Ciara waaw xam naa ñoom ñaar moom Ciara moom ak Jules euh, César moom daal côté banditisme moom mokkal nañ ko quoi ni ñu ko ni ñu ko la quoi. salaamaaleykum na ngeen def ba yéen ci jàmm waa man de ci biir des femmes laay wax parce que mel ngeen doxalee ak ko Kalsoum moom loolu man euh, li ma ko jàppee da ko war a doxalee noonu parce que affaire bi daf ko daf ko jëlee kaa te ménge tamit Oumou Kalsoum avant mu koy wax mm, monsieur le maire mënoon na ko wax ménge ñoom ñaa ñu waxtaan ci après ñu xool nan la ñuy def. parce que loolu moo gën parce que ñoom ñaar dèjà ñoo nekk ci kër gi di kafre lu am dañ koy partager seen bopp kon loolu mu def moom mais ngi def foofu mu kasum dafay juum bu baax a baax dafay juum waaw ah kii nag deewam ngi bett na trop mais mënoon na fee toog ba ci kanam parce que aji moom rek la am te tamit borom këram boobu tamit moo pon jëkkëram jooju mooy loolu ndax lim ko defal lépp ci këru àdduna wooyu ko woon a fay loolu waroo ko woon a fay juge na problème amati na ah naa ngi tëdd waa ñun fan brigade ah baax na ñun daal en tout cas daal ñu ngi ci xool bu baax a baax di seetaan mais affaire bi dafa compliqué trop mais ana jugaatal waaw kay fan waa brigade bi toogaat nekkaat dëgg neexut brigade moom bu taxawee rek ana nekkaat jaamam rek après jour moom gaay yi jaaxal ñu bon ñëpp lañ war a jàpp parce que théâtre bi day yeete te man dama ciy jàng bu baax a baax parce que bon dafa am ci àdduna bi. salaamaaleykum lu xew TV nangeen def mbaa yéen ngi sant waaw naka liggéey bi seen liggéey macha allah ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax a baax ndax kenn ku ne yaa ngi koy wax ni nga koy dundee. waaw épisode yi wallaay laasim yaa ngi koy wax bu baax na koy dunde yaa koy wax bu baax a baax a baax a baax ñu ngi ciy def lu dul bég ci rek wallaay laasim seen liggéey rafet na ndax kenn ku ci ne di nga wax li lay ak li la neex waaw mais nag aussi nag mœurs daal moom vraiment fi mu ne nii moom jaxasoo na trop suñu film préféré boobu moom jaxasoo na suñuy suñuy suñuy xel trop trop trop trop vraiment jëkkëram ji na nga ma waru woon a bokk ci ñi ko rey daal vraiment wallahi lazim Jules César daal moom lañ ma bëggoon nag mu nekk ko coupable bi aha foofu daal naqare na ma trop dañoo waroon def rek nag Jules César doon coupable mais jëkkër ji moom wax dëgg yàlla moom waru woon demee nii daal mais tamit lépp nag moom ci addina la rek ndax moom boo ngay wóolu nit te fekk du loolu oui maa ngi woote Europe maa ngi woote ba France di leen bëggee di leen jaar euh, man moom li may wax euh, bëriwul quoi man ana ana ci boppam moo war a wér quoi moo war a gaaw wér kooku dafa dafay wér parce que kooku daf ma nekk nit koo xam ne daf ma neex rôle bi muy jouer ma neex muy jigéen bu gëm boppam quoi te nekk na koo xamante ni yoon bi muy yoon bi muy rôle bi muy yoon boobu ku fa jaar ku nekk non doo torox barki Sëriñ Bamba man kooku daf moo neex quoi franchement muy ana quoi tu vois mooy loolu. salaamaaleykum salaamaaleykum waaw théâtre saar bi macha allah neex na trop wax dëgg yàlla moo neex na lool ndax ay yaata la quoi théâtre bi waaw maa ngi ziar ñëpp daal di ziar joxe seen xalaat vraiment xalaat rafet na mais affaire brigade jigéen ñi moom vraiment wax dëgg yàlla rafet naa ko trop ndax ñooñu dañuy dooleel jigéen ñi. dañ koy dooleel trop te lu baax la si incha allah affaire femme boobu bi ak technique yi vraiment ndaw si moom dafa xaw xaw dafa xaw a ragal waa a daal mais damaa xam soo ko bëggee nga di ko woo fu nekk nga bëgg koo wax ni nga bëgg mel ni ku kuur soo wax wala wala ngay wax boo xam ni ba xam soo ko xam ne du la fekk non na wax na wax ndax fi nekk na sóoraale am ñoo xam ne dañuy toog di seetaan di ko di ko di ko di ko di ko déglu quoi ak ñoo xam ne di ko déglu ci lañuy jàngat xalaat ba xam ndaw si ñuy wax lan la lu mu bëgg si sa waay quoi waaw ndax distancié rek li ñu war si ne sanante lañ ci bàyyi xel affaire brigade jigéen ñi femme boobu rëccoon ci oto bi taxaw def taxaw am dama baat bi ko mën na koo yor da ko am na gawar bi am na mbind bi waaw kii nag ak ki ñu jàppoon keneen ki foofu nañ ko bàyyi mu dal ko si kanam ak kanam ak kanam ndaw si ndaw si ndaan ba fay paaw dama tuddee ba benn wujj bi di ko wax keneen ko affaire bi naan ko ko beneen ndaw si moom affaire mbokk lay xool dëkk bi lu ko yàq affaire mbokk moo ko yàq mooy yooyu moo ko yàq mais dafa am loo nekk si yoon si yoon benn rafet mais fekk lu sama mbokk loolu def rek nga commencé nit ñi na jërëjëf maa ngi si waa groupe salaamaaleykum waa lu xew TV nuyu naa ñëpp ben après épisode 37 bi man li ma ci xalaat mooy tout se tourne autour de Abdel même boo xoolee Jules César pion Abdel la même bu ko Jean doon aidé lu ko Jean defloo ak lu muy def ça fait deux donc je pense que ni Abdel moo nekk derrière tout cela donc euh, il faut nous revoir pourquoi pas Jules César euh, retourne envers la police et faire euh, démasquer Abdel man sama jàngat loolu la ci film bi ben y a beaucoup trop de cas que tu vois comme le cas de xale bi suicidé wu te moo ko doon tëddee tu vois beaucoup de cas yoo xamante ni ñoo ngi ñoo ngi calme ak loolu société bi dafa war a jug si loolu pourquoi mbokk xarit wala ni ku fi def dara dañ ko war a démasquer man d'après man sama sama xalaat